wallaay mënulaa tax a dund dund gu neex sax waxuma ak di la dugal àjjana te ŋàññi yu la nit ñi di ŋàññi mooy di la sikk mënulaa génnee sawara mënula faa dugal itam nag kon bu nangoo nekk jaamu gémmiñi nit ñi doon nga xam gémmiñi nit ñi mooy sa boroom yow nga doonub jaamam looy def di ca xalaat la ci nit ñi di wax dangay gis koo xam ne lu bari bala mu koo def rek dana xalaat bu ko defee lu ci nit ñi di wax dëgg la léeg-léeg léeg-léeg sàmm sa der dana tax nga bàyyi xel nit ñi waa ngala bu mu yóbbu wàll wa ci yàlla moomoon jëf ji njëkk ci xalaat yàlla ba noppi bu ko rafetloo ak lu nit ñi mën a wax defal bu yàlla daf ko ñaawlu nag ak lu ca nit ñi mën a tagg tagg tagg bàyyi bu fekkee nag yàlla rafetlu la ba noppi te nit ñi mu am ci ñoo xam ne xañ na soo ko defee mën na leen a soke waaye kët loolu danga koy gisal sa bopp muy lu am carrément te yàlla eh, néewul jëf ji boo ko defut am bàkkaar su boobaa léeg-léeg danga sàmm sab der ngir kaaraange lor keneen waaye nag jëf jëpp nga bàyyi ci xel la nit ñay wax moo xam dañ koy gërëm nga sawar ca def ko wala dañ koy ŋàññi nga sawar ca bàyyi ko loolu la ne bu ko def ndax boobaa jaamub gémmiñu nit ñi ngay doon loolu la ñu xikma bi doon jàngal ñu ngi sant ñëpp di wax ne rek bu ñu fàtte salaatu ala bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ñu sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa rahmatullah